dañu koy tëj ak cant gi képp ku bëgg Abou Bilal tey seetaan télé bi fa nga nekk maa ngi lay ñaan nga jóg dama la ko ñaan rek sëñ bi jóg leen non jóg leen jóg leen wacce waa jóg leen yéen ñi may seetaan en direct jóg leen tonton mag ibbi leen micro ñi nga xam ne ñooy cant xatam xatam xatamee ayca ayca bu kenn toog ñu sargal suñu sëriñ alxatami bi tax Abou Bilal doon li mu doon tey ñu sargal suñu sëriñ ki tax abu bilal doon li mu doon alxatam alxatami alxatam alxatami alxatam alxatami alxatam alxatami alxatam e alxatam e alxatam e alxatam alxatam jóg leen yëngu jaayu leen alxatam alxatame alxatam alxatame alxatam alxatame alxatam ay waay alxatame alxatam alxatame alxatam alxatame alxatam alxatame alxatam alxatame alxatam alxatame alxatam alxatame ay waay alxatame alxatam alxatame tey batar tey batar tey batar tey batar cay batar batar buur cay batar batar buur cay batar batar buur cay batar batar buur eh cay batar eh cay batar eh cay batar eh cay batar cay batar batar batar cay batar batar batar batar batar batar alxatame alxatame alxatame eh alxatame eh alxatame jóg leen jaayo jóg leen jaayo jóg leen yëngatoo jóg leen jaayo jóg leen yëngatu day jóg leen jaayu eh alxatam alxatame alxatam alxatame alxatam alxatame alxatam alxatame alxatam alxatame alxatam alxatame alxatam alxatame alxatam Sarxole événement bu mag ci Sénégal lu mësta am plateau d'excellence plateau bu exceptionnel Youssou Ndour Thione Balago Seck Oumar Pène Ismaïla Lo ca Grand Théâtre yeneen artistes yi war leen a fekk si loolu lépp ñu jëmee ko maanaam ci ñi nga xam ne ñoom ñoo lore ci mbënd mi war dajale li nga xam ne moom moo di som bu mag daal di koy yóbbu dimbalee ko ñooñu waaye nag Abdou salaam Salam Diallo ñu dénk ko ci pàcc bu rëy moom moo war a jaay billets yi en direct tey jii à partir de 21h après un café avec Abdou Salam salaamaaleykum. aleykum salaam Boubacar ni nga ko waxee noonu lay amee di sunu yaay yi sunu tante